asalaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen tey nag ñu ñëwaat ci jataay bi nga xam ne fas nañu yenn di ko def bis bu ne incha allah tey nag ñu ñëw ci waxtaanu Sëriñ Sam bi nga xamante ne mu ngi wax ci wàllum toppandoo gi nga xamante ne ñoo gis ne jullit ñee koy def ci loo xamante ne jëmul ci yàlla jëmul jëmul ci loo xam ne tamit eh, da lay day waral àjjana lu ci jëmmi àdduna rek ak i tamit waxtaan yu am solo incha allah ñu dëgmal Sëriñ Sam Mbaye ak waxtaan yi nga xamante ne daal na ko faral di def waxtaan yu am solo bisimilah sëñ Sam ayibal naan la da ngaa tardé wala yaa ngi topp ñi nga xam ne seen temps wéy na wala dox nañ seen temps ba mu jeex ñu bëgg a yàq sa àdduna nga dégg ko gëm ko da nga woyof bopp dama yàlla baal danaa ko faral di wax nag wolof moom woyof bopp moom ci la gën a bare na ma man wolof laa dama wolof yi ci des baal waaye dañ ko dañ ne jàngoroom da koy xam faj ko loolu dañ koy wax ci waxtaan yi rek naan man dama gis wolof di tudde doomam tukkulóor tubaab naar bambaraag yu nekk te ñoo ñëpp kenn du ci tuddee wolof sa doom ma gis ne même jigéen ñi jigéen ñi xewat lu kenn wax mu saf xorom ñëpp def ko xewat yére yére sax buñ ko kenn solee mu rafet doo xam doo seet jàpp na la wala jàpp la ñëpp a koy daal di def rek bale jënde ko lu seer bale am ñaari yoon ñu ne xew yi ne bàyyi kenn duñ ko solati wala kenn kii xew la daal di def lu bare bare bari ci dépense nga ne ah diw def na ko kon kat foo ko ma def lu mel na li mu def yooyu yëpp wees bu yàggu rek doon nañ fi wax mbiri yàq yi yàq alal daganul wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifina israaf ci alal am na yonent bi sallallahu alayhi def fekk kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko wattul yàq bàyyil yàq mu ne ko ah naa yàq am na sax ba ci ndox mu ne ko boo newoon ca tàkku géej ga di as ca géej ga it yàq boo yàq yàq la waa nit ki jullit bii dañ koo sant muy jiital xelam ci lu muy def lu muy def na xam li tax mu di ko def te nangamay tax mu di ko def bu mu ne ñi ngi koy def rek naa ko def daal diineem day daal di wàññiku ko bu ko defee day daal di réel ci xolam lu matul a réel daal di woyofal loo xam ne gis na nit ñi woyofal ko rek mu woyofal ko te fekk lu diis la fa yàlla gis nit koo xam ne benn doye dina wala ñàkk na wala wéradi na tilim na nit ñi xeeb ko nga xeeb ko xamuloo kooku fu ko yàlla teg yaa ngi topp nit ñi rek rus ngaa sax ànd ak moom lépp waaye bopp la ndax liñ ko faral di waxee rek xadis ruba xabru ruba xabrin yu zaar wa saahibu fi naar bare na bàmmeel bu ñuy ziyaare ji te borom ma nga ca safara ndax nit ñi dañoo xamul lu dul zahir bi te zahir bi tuuti lañ ci xam xamuñu baatin bi tax ñu ne rubba aduwin fil aba wa sadiqin fil xaba bari na xaritu yàlla boo xam ne yaa ngi ko fekk ca poma muy fo ak noonu yàlla boo xam ne yaa ngi ko fekk muy jaamu boroomam lu tax lu muy mujj nit ki li muy mujj rekk a takku mbokk yi loolu mooy waxtaan yu am solo yi nga xam ne suñu saam jugutoon mukk ci di ñu jàngal lan mooy suñu diine jugutoon mukk yi tamit di ñu jàngal li nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bàyyee suñu ci waa nekkoon ca mu nekkoon jëmm jo nga xamante ni yeesal na lu bëree ci jamono di ko ñaanal suñu borom dolli yërmande ci moom te gërëm ko barke Cheikh Khadim kon gars yi loolu moo nekk